الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي رضوان وتمكين ورضوان الله تعالى الأكبر عن العبد الخديم شيخنا ووسيلتنا وقرة عيننا Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla buur bi subhanahu wa taala julli ci yonenteem bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak di leen baal di ñaan yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal di jiital ci nuyoo boobu ak ziar bi Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbakke xalif général kullu murid ko ñaanal yàlla mu yàggal ko loolu te ko ba lépp lu mu yéenee liggéey Sëriñ Tuubaa ma eggali ko ànd ko mbooleem jullit yëpp ak mbooleem taalibe yëpp di leen ndokkeel bu baax tamit ci weer wu tedd wi nekk di weeru rajab weer wu làmboo ay ngëneel waaye weer wu làmboo ñaari xew-xewu lislaam yu mag ndax ci la yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam defe woon rañaan bi ci weer wi ñu nekk ci la jullee juróom wàcc ci xeet yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye ci la sunu serigne bu magba ba di sëriñ Fallou Mbacké gane jamono kon ñoo ngi leen ci ndokkel bu baax ñoo ngi am ci delsiwaat ak yeen ci seen jotay bi di ahlu khasida ngeen baax ko am khamis bu jot fi ci seen site internet mourid info waye baax ko and ak seen bokkum talibi modou tiare tay ñu fas and ak yeen ci ben ci khasida serigne Touba yi khasida euh, bu mag waaye xasida bu mag bi xasida bu làmboo ay ngëneel te bari ay jagle muy xasida ak nuuru daarini fii xidmatil xaami anil arini tey moom lañ fas yéene ànd ak yéen incha allah moom nag dafa bokk ci xasiiday ginnaaw géej gi euh, ndax sëriñ bi mi ngi ko taalifee njaareem ca buqaatul mubarak te xasiiday ginnaaw géej gi nag sëriñ bi amna lim ci waxon ndax dina won xasida yoyu de ño gëna kawe ci ludul alquranul karim ak hadith mo ne won kep ko xamantene yang koy jàng lépp lo ci fas suñ borom subhanahu wa taala dem la ko defal ak nuru daare ni ci xasida yoyu la bok mom nak xasida ak julli ci yonnati bi sallallahu taala alayhi wasallam la ndax xam ngeen ne xasida yi dafa bari ay xeeti xasida am na yoo xam ne dafa jëm ci sun boroom sëriñ bi di ci sant yàlla ak di ko jéggalu ak di ñaan yàlla am na ci yoo xam ne ay xasiday salawaat lañ am ci yoo xam ne ay xasaay du tagg lañ nuru daaray ni bii nag xasida ak julli ci yonante bi la mu mel ni sëriñ bi bu ñu seetloo xasiday salawaat yu bëri euh, daf ko daan tàmbalee ci aaya ba sun boroom di wax ci alquran ne mom ak malaikam malaaykaam dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam daal di digal ñi nga xamne ñoko gëm ñuy julli ci mom lu melni jalibatul maraqib danañ fa gis inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ba ci mafatihul bisri way khasida gi di nuru daare ni dafa melni serigne bi andi ko fi waye maxnam aya bi mom la andi ci khasida gi te buñ démé ci kanam dina ci feñ inshallah waye mu melni itam xasiday salawat yeb serigne bi mi ngi len talif ci digeunte euh wéru rajab ba ci wéru tabaski moy wéru wi ñu nek ba tabaski ndax dafa waxon ne min rajabin ila intihaasil xijja lahu alayhi salawatul xujja lahu salati wa salami min rajab li xatmi zil xijjati nicmal muntajab li xatmi zil xijjati nicmal muntajab minni salaati ala man intajab kon foofu yëpp sëñ bi dafay xam le ne li ko tàmbalee ci weeru rajab te muy weer wi ñu nekk ba ca tabaski juróom-benn weer yooyu ci lay julli ci yonante bi sallallahu taala wa sallam dafa mel ni sax ci diggante rajab ak saabaan ci la sëriñ bi way xasida